ndogule dafa dafa ñëw ak feem yu bees waay namal ñu ci Dan Bombe vagabond la ey Jean Michel Keesman la Rama Caam jéegu puso ey maya waxkat la Tony chef de bu dëgër fit waaye xam nga lu ma jaaxal quartier bi du ndogu nga naan Sénégal Sénégal Sénégal dof-dof yéen waa tooñ bi xàmmee naa ni bon ak ak ñi baax xàmmee naa ñi soxoy ak ñi nga xamante ni soxoy waaw fii tu ma neexoon fii dugg tey. Ah, xaw ma alhamdulilah ah, eh, jaamite. waaw jaamite tax. xalaat eh waaw. si jaamite tey danaa sant de. xaw ma ma ma gën a. baasan nga. waaw ah. ah. baasan nga yaa wax. xam nga waaw. donc moo ma jox sant sant. pour dialogue bi la maa ngi may dem si bi. du may ba de. jaay bi ci këy gi. ah ci këy gi yee nit ñi nit ñu ñëw dama dudd ci bii ci këy gi. <laughs> joo waaw bi. ak du meey ba de. boo demee meey ba da ngay de du meey ba de. allah yàqoo la bu yàgg. ah ci bii. wala wala sama léemu bi nag. waa dama ci biir yéemu ma of ah, ah, lii de nag yéen naan foof nag moom maaleykum salaam maaleykum salaam tawa ah, data neen data data data neen def yow de sa wax waroon nga koo def yéen yan ya yi yéen tax a jot. sa baay la ñuy laaj. Mm. yow tabaay yaay yaay ya yabaate bay biddati. waaw amoo éducation de. ban éducation damaa yekk solution bay am éducation. waaw baax na jërëjëf. waaw. Diop la doon ñëw ci réunion bi. ci jaayag bi ñëw yow noo tudd. soxna soxna Tumba soxna Tumba soxna Tumba Diop du dëgg. maa ngi waaw du doy ba paye yow dugga te ñu yaay mu naan naan ñi ñoo ah yow noo tudd yow doo def ndànk yow day mel ni bëy do nii doo def ndànk topp yeen yan bi topp yeen yan mais yéen ni piki yu yan yeen noonu yow nan noo tudd man yanda laa tudd nan yanda njaay yanda njaay waaw dama jaay nga may saay mais man du ma sama yow dégg nga man sa kalubaay laa ah sa kalubaay Jóoba Njaay. waaw du dëgg. mooy am jàmm. koy doon musooy. sa musooy yàdd yi noo tudd. maa ah? maa jaayo. maa jaayo. maa jaayo. maa jaayo. ah waaw na ma maa jaayo. ñu ceeb na ñëw jaay. ma jaayo wala déet. waaw doo def da dañ ma yuuxu naan ma ma jaay waaye de ba ma yuuxoo ma yuuxu yow doo jaay yan ya yow waaw yow jaayee ci bii atta damay. waaw wuute naa ca yóbbu bu. tataw eh tataw ay ah booy da koy waa <laughs> booy da jaayay jaayay jaayay. boy sukuran boy sukuran. imam boy sukuran man boy boy bàyyi boy bàyyi ma rek. imam danay dem ci jàng. waaw. sunu desitu l'argent bi la ñuy jël si. waaw damay damay koy bi nag xamee naa ko keroog moom yaay koy papa voilà maa eh tataway nii tataway nii ana jigéen ak yasta tataway nii yow noo tudd waaye xàmmee naa ya wuy ma tey fii jaay moo fi am de ay doxaanante amu fi yaa ngi dégg kuy wéy góoy ba weeyu kooy nga mën a toog jàmmi tey tey tey ya de doxaanante a jóg dialogue bee tax a jóg yow de jàmm na indi tax tey bayaa njaay jaayay jaayay yow noo tudd Binta foo jëm am na 18 ans ah ah yow it am na 18 ans yow da ngaa goy ses précoce de yow amoo 18 ans de waa jaaya jaaya jaaya yëpp seen daadaa yi di xëy yëpp a mooy waaw man jaay bi it dinaa ko fekk tax maa ngi fi tatawee te ñëpp dudd na xaaral ma dudd. moom tey moom pap tey dama yiddee yiddee tey ma yow biinoo xam nga biinoo biinoo ba àndoon ak Senghor ah. ñëw ànd ak Abdou Diouf mm-hmm. ànd ak Abdoulaye Wade mm-hmm. ah. Macky Sall jëy yéemu tuuti yeeg biinoo yàqu ah, biinoo boobu maa ko yow tey yigéey naa yigéey boo xam ne ci buntu këy mm. yaa iya maa yoon protocole bi waaw waaw tu ñëw man yee noo tudd nga wax ma te tuy man yee dudday <laughs> ci jaayaat bi na bot dudday waay yaay waay yaay ma xaw a teel a gaaw kooku non non non non dama toi aussi eh. dama am ay gën quand même ah. dama am ay papa ngi yuyee ay nag papa ngi yuyee ay. du ma gën papa sama téeméer na ma ko jox. Uh-huh. waxal boo gën sulee. waaw mbooloo mi. waaleykum salaam. asalaamaaleykum mes kenn ku nekk maa ngi koy gërëm di ko sant si teewaay bi ngeen teew. Euh, demoon naa ba am xel ñaar na doo leen ñëw waaye daa am ñoo xam dañ fi ñëw dalal sama xel ndax xam ngeen na jalo bi démb la waroon doon ñu dàq ko ba tey ji mu ñëw waaye lu ma fi indi lu leen fi indi tey ji ma woolu leen ko pour ngeen mën maa déglu ndax kenn ku nekk am na loo jëncoon sa biir xol yaakaar na loolu dafa ne waaye yàlla dogal na comme am naa fi ñaari seede yoo xamante ne ñu ngi fi ma bëgg ñu seede ma ma leen wax ne monsieur le jour bu mu ñëwee fii wax fi kàddoom googu ne kenn ku nekk dinaa dem buntu këram ma jox ko moom bu ma messager mais yàlla xam na ne ko du dërëm boo xamante ne jot naa ko si monsieur le maire. mu jëm si yéen. monsieur le maire jour boobu mu fi ñëwee si laa ko de teg bët ba léegi nii sama ñaari soxna yi. jóge nañu marché ñoom gis nañ ko teg nañ ko bët. Uh-huh. waaye man dem naa mairie ba demat fa demaat fa dem naa këram demaat fa demaat fa ma ñëwee ñu ne monsieur le maire voyagé na génn na monsieur le maire voyagé ba sànq ba tey du dërëm boo xamante ne nekk yónnee na ma ko pour ma partager leen ma bëggoon nag mu clair ndax ñaari seede yi mun nañ maa seede imam ak chef de protocole kii ngay gis ni muy chef de protocole xaw naa fi xeex ak moom si mbedd mi ah, jàppate ba dóorante fi dóorante yi oh. metti waaw te man maa ko tooñ man dama yaakaaroon monsieur le maire moom la yónni mu téye xaalis bi bañ ma kaa jox ba ma xeex feeg moom te xam nga loolu jaru ko jéggulu naa ko dem naa ba si place am nag fu mu ne ma jéggul ko baalu ko àq na ko baal ma xam naa ne tooñ naa la waaye li ma la tooñ yëpp monsieur le maire ko yóbbee am na ko nag imaam mii nag moom tamit xaw nañ fi jàppante xaw na jàppanteeg sax xale yi. waaw ndax lan affaire bu moom dafa yaakaaroon monsieur le maire ma ko jox ma bañ ko jox ma bàyyi leen ak chef protocole moom mu sànni si kàddoom wax leen li nga xamante ne noonu la mbir bi tëddee. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum di jégalu rek. jugal tataw waaw. ko doole di jégalu waaw. soxna yi nañ def. namm naa leen. waaw waaw maman. na ma leen ci na nga wax yeeg. Euh, bon ah, wax dëgg yàlla vraiment man ku dee ak sa bamel. Hmm. te ku dégg Baye Zal. ah di séeréer pire. du seede caaxaan. ba tax na ba suñu borom lay waatal de. Hmm. mbindeef bii. Hmm. wax dëgg yàlla monsieur le maire joxu ko xaalis. parce que. mun naa ko seede. waaw taxaw taxaw. monsieur le joxoon na ma junni cinq mille francs. te borom cek-cek boo la ko joxoon. ba pare kooku ne ma naa si te kii ko sàcc. waaw ñëpp ngay yem ci. loolu dong la bu mu wéy kese nga yem moo tax ma jóg ko. waaw bon xam nga tamitam aduna. moom nii la rek waaw xam nga ku nekk rek da ngay yaakaar leneen mais ci yoon man ah ak monsieur le maire yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ne benn lañ te keroog ba fi ñëwee lu leer la ma laa leen wax dama leen ne na am trace mu ne déedéet ndax lii suma poche laa ko génnee kon kii génnee ci poche am bu budget ñëwee da ko daf ko war a joxe mm. dafa ak seegul dafa ak seegul dafa am négandiku rek mais bu soobee yàlla ak yonente bi ah incha allahu rabbi lépp dina leen saa su ñëwee yéen ñëpp di ngeen ci teg seen bët kii nag. wax dëgg yàlla ku ko wax dara nga tooñ ko. tooñ na ma barke dem jégalu na ma ndax man xam naa jéegal ak jégalu waaw benn kaat nañ bañ waaye nag du tee tamitam ma seedal ko lu yàlla suñu borom wax mm-hmm. waaw dara joxu ko ko mm-hmm. euh, maa koy seede nag di leen bàllu àq. di leen dox rek négandiku yàggatu incha allahu rabbi lépp dina leer bu soobee yàlla ngeen baal ma ah yéen nekk ngeen benn kon eh? lu mu dugg yàqu dugg leen <laughs> waxal may ma sama doom la mu mu mu nga baal ma comme la ma waxoon da ma waxoon monsieur le maire nee na euh, buñ ne suba la korité mu rek la kaa yëpp monsieur le maire moo wax yooyu waaw monsieur le maire moom moo wax yooyu mu ne suba buñ ne suba yo korité mu nee na. waaw bu soobee yàlla ak yonente bi. waaw waaw ma dogaat sax. waxal ca kaw ndax wax day leer. waaw nee na bu soobee yàlla ak yonente bi. waaw buñ ne suba la korité. Hmm. ah incha allahu rabi lépp di ñeen yéen ñëpp ku ci nekk dina la jox ah. sa sa sa sa sa kii. waaye ci waaw. ginnaaw ba ma sante yàlla. waaw. julli ci yonente bi. sant samay ñaari waajur di leen sant yéen tamit ndax àddina amul solo man ne man wax fa dëgg neex yàlla keroog sees bee laa toog Moussa Mer yëkkati ñeenti junni ne ma arsa arsa de poche oh. te ba ma doxee un pas deux pas weccet wi sax bi ma joxoon dafa wadd oh, oh. pour ma firndeel leen nii monsieur le maire ay waxam dafa gaaf. comment. ma ne monsieur le maire. Ah. ay waxam dafa gaaf. est ce que est ce que. waay waay wàcceel say la nekkuñu si daay la. Ah. yaa ngi def Diop nag sant naa la te it gërëm naa la. yaa sa soxna yi. papa bi métti dara. Eh, na na pii ba daa yow it na pii ba daa déglu rek na pii ba daa. xam nga ko ak ah, ak ak loolu waaw. Diop ma sant bu baax a baax maa ngi yul sax yaa ngi ak doole doole booy booy ngir yàlla booy bàyyi ma wax. jàmm si jàmm kër gi de. wax wax imaam yegg waaye man mi xam naa lépp ne mu tag moom billahi monsieur le maire ne donnait pas joxu ko dara wallahi xuloo noonu fi jàppoon dësi non non non non imaam imaam imaam xam naa lépp imaam xam naa lépp imaam xam naa lépp eh, non jàng ko imaam imaam garawul. ah ah du jooy rek imaam imaam ah. bul def nii bul def nii boo defee nii dama lay stop imaam bul dem. Uh-huh. nga baal ma baal naa la bu baax a baax. waaw su su imaam wax na dëgg. ndax bi koor gi tàmbalee ba yéegi benn yoon yéen fi mos a te ndodd yooyu tax ñu mujjee ñu tooyee. wallaay imaam mii. ak ñamu àndayoon ñoo ñëw këf payaat ba muy muy yàpp ba eh. ndawa ya mooy ba imaam naan soo say yéen ma fii oh, bis boobu donc yéen monsieur Dieye décision pour ndodu fay mu avoyté fekk ma fi yàlla xam nga asalaamaaleykum mbooloo xam nga lu am solo ci àddina Diop dafa tubarkalla macha allah da di géwél lu mu wax ci bay ñu ne der baa tax waaye kii li ma ko mën a seedeel ku jub la ku màndu la soxlawul déw mu kenn ah. nii lañu tooge woon mu ci la meer wax hmm. keroog googu mu waxee keroog lañ ko gëj a gis ba barki déema ba ñu dem marché ñu taseeg moom ba mu wàccee nee na dem na ay londar états xaw ma lan lan lan lan lim na daal ba doyal daal di ñeenti junni jox ñu bam ñu koy jox kii ne moom jëlul man ko man damay jël ah, waaw ndax suñu alal la hmm. li mu joxe suñu alal la mais comment maman ah comment sa alal pour lan la sa alal mais pourquoi communication la yaama mais mais je ne comprends pas suñu ma ñëw ma ma ñëw ne alalam la waaw ah, alalam monsieur le maire la si poosam nga ci poosam mu demee moom alalam la waaw mais mais daf ko war a maye mais déggoo li mu wax déggoo ni maire bi wax est-ce que dégg waaye man lu ñu joxe suñu alal la mais xoolal may mu ñëw waaw yaa ngi dégg sa alal la ma di leen biral hmm. ndax samay doom ngeen jomb naa wax lu dul loolu ci seen kanam nee na nag buñ nee suba la korité dina indi li muy indi te la muy indi incha allah buñ ko fekkee ak kii bu dee dërëm la ko ne nga ko jot bu dee ñaar dërëm la ko ne di nga ko jot ndax monsieur le maire indi naroon na indi musiba ku kenn xamul fu ñu koy defaree mm-hmm. ndax kii ak kii samedi ak dimanche la benn bés taxut seen diggante imam mi mooy fi may sëy yi mooy tudd doom yi mooy sang niw yi mooy jullee niw yi imam te kii di maire ñëwoon na nar ko yàq waaye nag ñuy sant di yàlla julli ci Seydina Muhammad ba seeni xel dellu see gis nga nit ki buy dem na ànd ak xelam ma di leen gërëm nag di leen sant ndax toogaay bi yaru na rek la ngeen dal ngeen lu tegu fii incha allah ci loxo ak xaritu maire bi ak imam mi lu ci waaye wu ci war a ñëw rek lépp rafet na lépp rafet na ñu dañoo ñëw rek profetal kon bi dara xaju fi waaye lii ngeen wax day gisuma dara dara dara lu ci mënti tegu ndax lii ku mu dalal dara dootu dalati sa xel. dëgg ah yéen. Ah, lii moom wax dëgg yàlla c'est vous qui parle comme ça là vous qui insultez les gens. oh yow waxoon eh, eh, woon sama dialogue sa yoon nekk si kon boobu teel sa muuti ji. yeggee yeggee c'est pas vous lii daal jamaano ay yegg <laughs> lii daal ku mu dawul xelam li naan lu mu dawul sax ku mu dawul yaramam soo yaram waaye lii ngeen wax moom ñun waa quartier bi ak waa gox bi gisuñu dara luñ ci mën a teg lu di ñaan yàlla ak fekkeek tal mm-hmm. yàlla may ba korteeg jàmm ba keroog keroog keroog kon ca wax ja te kon wax na bii an bii day mm-hmm. ah yàlla mën naa dogal bu waxaatee mu ànd ci kanam yàlla keroog ñoo bi ma doon jullee ca jàkk ji mm-hmm. dama dugg ci morko bi rek ndeysaan. waaw mu may fàttali. waaw fàttali. ndax man ndax eh, eh, kii jox na ko. xanaa xanaa xanaa. mu ne mi. waaw imam waaw. alalam lay dem. waaw. yaa ngi dégg. waaw day may. imam mais nag bu korité bi. jayog yéen wax jayog kenn pay teen na waaye wax yow wax nga pay tan moo waaye waxaat. man maay poyto koy chef d'état de. waaw yow poyto koy mee nga yama ci mii yi ba. waaw kan moo ngay waxaat. Ah. Ah. Eh, ah, a wax dina ton ma kolos ton ma kolos. ton ma kolos. am na a wax yow. li ma bëgg a am nga loo a wax. kon chef kii moo délégué mbootaay bi. moo délégué comme dafa guddee. pe bàyyi ma koyoos waaw kon waaw man yi may koyoos mooy poyeta koy yaay yóbbante ci monsieur May damay bañ monsieur May def tom ni May yi géejawaay ba defoon waaye envoyé xaalis bi envoyé juum envoyé ko ci beneen tontu hmm. <laughs> yooyu moom ah. yooyu moom ay éeya tey bu todd ay dénn ah. nee ko kooy gi yëpp foofu la nee ko kooy gi yëpp kooy gi yëpp dañoo datoo yaat daa yaat suñu kooy mu teye mais moom kooy gi yan gi suñu kooy datoo yaat waaw di nag waaw bu ne suba ya koyite ñëpp dinañ toog di xaay sooba yàlla bu cooba yaay bu bañee ñu fekk ko juy koyite këyam na yónnee bu ne suba ya kooy moom bi mu fi ñëwee xaalisam la doon maye mais bii nag xaalis boo xam ne ci état bi lay jógee ak forcé la day ñëw incha ah, allah kon baax na. may bañ mu jaawee tontu eh, eh, mu eh, jaawee tontu comme ni sew na ko guddi na. te ñii dañuy taaj yu ndogu. dañ leen di ñaan ñu yemale fi wax ji mm. ñaa ilimaan ah, ñaan ñu yeeweeku dem defal kenn dogi borom gërëm naa leen sant naa leen bu baax ah. seen teewaay rafet na maa ngi leen di gërëm ñu ñaan yàlla li nga xamante ne moom la yaakaar si monsieur le maire yàlla na ko monsieur le maire soo kon imam ñu bàyyi la ñaan gi nga tëj ko ñu bàyyi nit ñi dem seen yoon ah. imam tey na ko taxawal afat tey na ko taxawal afat imam tey na ko taxawal ñaan nañuy dem xanaa xaawaal waa Sénégal. ndogu leen dafa ak feem yu bees. waay namal ñu ci. ndogu ak feem yu bees. waay namal ñu ci. Dan Bombe vagabond Michel Guèye man la. Rama Thiam jéegu puso. maa yaa